min al ilaahi bi rasuuli العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi leen nuyoo tatagal leen di leen nuyoo fii nga xam ne mooy at daaru salaam kër borom gaawaan waaye di nuyu ak di ziyaara bu baax kilifa dëkk bi di alxaliifa sëriñ abu muhammad mbakke di ko ñaanal ci borom tabaraka wa taala yokk ko waaye gën koo defal barke gën koo sàmm di ziyaare mboolem kilifay dëkk bi tey jii nag tombeeg le 13 juin 2024 ñu leen di nuyoo fii nga xam ne mooy daaray soxna Maam Anta Ndiaye Mbàkke ci wooteb al mudira directrice soxna Muuminatu Silla ñu ñëw fii wuy si woote bi nga xam ne ci la ñuy wootey di tatagal ñépp waaye di tatagal suñ mbokki donga yi bu ko defee ñu fas yéene tàmbali liggéey bi ma war koo séq ak al ustaad sëriñ Murtada Silla di ku ñu xam ci al azhar bi école sëriñ Murtada Ndaam bu ko defee moom lay jox mu xamal ñu naka la programme bi di tëddee su ko defee ñu mën a dérouler liggéey bi di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ñu mën ko àggale ak jàmm comme ni nga xamee tàmbali nañ ko kon sëriñ Murtada bismillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ xaadim jërëjëf ñoo ngi soof suñu nuyoo ci sab nuyoo ginnaaw loolu ñu njëkkanteeg waxtu wi rek ñuy ñaan mbokk yi nga xam ne ñooy istiqbaal ñooy dalal nit ñi ñu fexe ba ñu taxaw ci bunt bi ñoom ñëpp ñu toog xale yi ne ci biir baas bi ñu xool fu ñu leen féetale ñu toog fa bu ko defee ñu tàmbali bu waxtu julli jotee rek ñu pause julli dellusiwaat dañ doon ñaanit bu julli jotee xale yi bañ a génn baas bi ñoom mën nañoo jullee ci biir baas bi bu ko defee mbokk yi dugg ci biir julli ñu ñëwaat continuer incha allah niñ ko waxee rek mooy xale yi ubbee nañ ay way yoo xam ne moom lañ doon nuyoo mbooloo mi moom lañ doon nuyoo mbooloo mi di mbooloo mi nga xam ne ñoo wuy si wooteb alxuraan bii nga xam ne tey daaru salaam feeñalati na jaloore jaloore ji nga xam ne moo nekkoon cosaan ci moom waaye it barkeb soxna maam Anta Ndiaye mi nga xam ne moom lañ duppe daara ji nga xam ne tey lu mat juróom-ñaari xale di ay jigéen ci diir bu gàtt mokkale nañ fi alquran mokkal gu set gu leer goo xam ne ci kanam incha allahu taala dana danañ ci am ay firnde niñ bëggoon a doxale programme bi rek mooy incha allahu taala dana am ñeenti xale yoo xam ne ci xale yi toog danañ ubbi barkeeloo alquranul karim ñii ngeen so ñii ngeen gis ñu toog sol yére yu vert blanc yii ñu sol te yiw lool ñooy xale yi nga xam ne ñooy jànge ci daara ji nga xam ne ñoom it incha allahu taala fii ak ay diir bu néew rek danañ fi génnewaat ñeneen ñu fi mokkal incha allah euh, ñeent danañ ci barkeelu suñ xaadim bu ko defee buñ barkeeloo ñoom ñeenti ñooñu bu fekkee ne waxtu julli yu jot na dañu daal di pause julli dellusiwaat bu ko defee buñ dellusiwaatee nag sëñ Mbàkke Abdourahman di borom xam-xam bu mag di kat di yarekat dana am kàddi soññee yoo xam ne bu mbokk yépp ñëwee dana joxe kàddu bind boo xam ne njariñal jàngal jigéen njariñal jàngal jigéen rawatina njàngalum lislaam yarub lislaam njariñ lim am te mel ne lu xewaat ci jamono alhamdulilah yàlla na gën a yokk loolu dana ci joxe ab soññee bu noppee nag gone yi danañ defaat xasiida goo xam ne dañuy dalalaat gan ñi bu boobaa dana fekk ñiñ duppee bis bii nii ñu teew muy waa kër sëriñ Modou Rokhaya Mbacké mi nga xam ne maam la ci soxna Momi Silla mi njiital daara ji waaye waa kër waajuram bu góor bi sëñ Alhaaji Njuga Silla yàlla na yàlla dolli leen leer ñoom ñëpp moom it délégation bi fa bàyyi ko ñoom ñëpp ñu toog bu boobaa danañ am kàddu yoo xam ne xale yi danañ leen tarxiib dalal leen buñ noppee nag ci la ñuy dugg nag ci njàngum ñi mokkal nag ñooñu nag incha allahu taala juróom-ñaari xale lañ am na fi soxna maam jaara abo xam naa sëñ xaadim dana ci ñëw soxna faati bint Diop soxna may Mbacke soxna bint silla ak soxna maam anta mbay ak soxna mareetu mbakke ak soxna kumba saar ñooñ ñëpp ci faram-fàcce ñooñ ñooy ñan ci ban anam lañ fi mokkale loolu lépp incha allahu taala sëñ xaadim dana fi ñëw incha allah bu ko defee bu xale yi jàng it euh, mbokk yi nga xam ne ñooy jàngalekat yi taxaw na le nga xam ne sonn nañ lool ci xale yi ñoom it ñuy fexe ba ku war a ñëw rek ñu gunge ko ba mu tari ñu dellowaat ko bu jëm ba ñu yéegal ko mu tari su noppee wàccaat yéegaat noonu lañ auzu billahi minash shaytanir rajim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 bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آمنوا ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم sadaqallahul aziim. a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim. walaqad aataynaa luqmaanal hikmata an ushkur lillaah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثل مثقال حبة من خردل فتكن في صحراء إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صحراء فتكن في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله inna allaha latifun xabir okay soxna sadaqallahul azim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñu diglo waay mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh maa leen di nuyu di leen ziara te di leen ndokkeel ci jataayub alquran bi ñu boole di rafetlu lool am solo jataay bi di nuyu baaxit kilifa yi fi teew yépp di ko tàmbalee ci sëriñ Mourtada mi toog ci sama wet di jaare ci moom di nuyu mbooleem mbokk yi fi teew di nuyu it dongo yi nga xam ne ñoo moom bis bi rawatina ndaw yi nga xam ne yàlla dafa def ñu mokkal téereb yàlla bi te loolu di xéwal bu rëy ñu leen di sargal di ñaan suñu borom daf leen ay mag yu barkeel di jaajëfalit ñi nga xam ne ñoo leen doon jàngal di sonn ci ñoom ba sunu borom daf ci ñoom alquranul karim waaye di jaajëfal baax it soxna moom yi mi nga xam ne. soxna moo yor daara ji di ci liggéeyal yàlla ba am ci ay résultats di ñaan yàlla gën koo sàmm gën koo dëgëral waaye gën koo dooleel waaye baril ay kemam liggéey bu am solo la. sëriñ Mourtada wax na léegi tomb bi ñu waxoon bëgg ñu soññee ci kon ay kàddu yu néew jëm ci am solo goo xam ne jàngal jigéen ñi am na ko solo muy loo xam ne nag mat naa bàyyi xel lool ñu ngi sant yàlla nag ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moom sëriñ bi ko sosoon xamoon na lool am solo njàngum jigéen ba tax bàyyi ko xel mel na naag ñaanam suñu borom nangu na ko ba tax daara yi yaatu fi lool jàngalekat yu góor ñi ak yu jigéen yi bari fi ñuy jàngal ndaw ñi alquranul karim di leen jàngal xam-xam di leen jàngal diine lu am solo la waaye jigéen day koo xam ne ci xeet wi su jagee rek lépp jag bokk na ci solo si moom bu jagee ñoom yaakaar ci ne xeet wi dana jag waaye bu jëgul kenn du yaakaar jagu keneen ndax ñépp ci moom lañuy jóge jógee ñëpp ci moom lañuy ñuy ñaare ñëpp ci moom la ñuy mujj loolu day solo su mu am moo tax lislaam bàyyi ko xel lool yitteel ko lool ba yonent yàlla muhammad alayhi salaam ñëwee yàlla yónni ko daa fekkoon lu jiitu ñu woyofal jigéen doy dal ko jàppe ko koo xam ne amut solo ndax gis-gis yu gàtt ba ku mës am doom jigéen sax dangay ngay mer am loo naqari jàpp ne boo soñoon góor ngay am sunu boroom xam le ne doomu aadama yi ñëpp a yam kenn ku nekk boo matee lañ lay doyee rek kenn gënatu la te xeet wi dafa soxla góor ni mu soxlaa jigéen kon jigéen ñi faaw ñu waajal leen ngir ñu mën a taxaw ci liñ leen di doye liy wane solo bu ñu ak yitte ji mooy yàlla da ko bàyyi xel digge ci aljanna digge ci mucc ci sawara digge ci dëkk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ay xadis yu wér saxal ne ku yàlla dénk njaboot gu jigéen nga taxaw leen jàngal leen yar leen yonent bi alayhi salaam bu yowmal xiyaama yaa moom tàllal ñaari baaraam ne nii ngeen di mel maanaam ci wetam ngay nekk fu mu dëkk ngay dëkk kon loo mën a def bu say daraja ak foofa yi taxaw bi nga taxawu jigéen ñi dana tax boo ëllëgee suñu borom yéegee la ca maqaama yonent bi alayhi nga dend ak moom dana tax a mucc ci sawara am na seen soxna soo xam ne dafa ànd na ñaari doom ay seex ñëw ci kër yonent bi alayhi fekk fa soxna Aïcha muy sàkku ndimbal soxna si xool-xool amut lu mu ko jox lu dul benn doomu tàndarma soxna Aïcha nee na ma xar ko ma jox ko ko mu xar ko ñaari xar daal di koy séddale gone yi waaye moom lekku ca bi yonent islaam ñëwee mu nettali ko ko mu ne ko ñii de ku ci yàlla dénk nga taxawu leen sàmm leen ñooy doon sa kaar say kaaraange boo ëllëgee doo tàbbi sawar loolu day wane kon jigéen am na solo ci biir xeet wi boo leen taxawoo man nga cee am na waaye mën nga cee mucc ci sawara ñetteel ba mën nga cee dëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu it la Maolana Cheikh Ahmadul Xadim xamoon Serigne Touba bi mu ñëwee di wooteel yàlla ci diineem ji yittewoo ñépp jag te xam na ne bu jigéen ñi jagul keneen du jag tax mu dox la yitte fekk na ñu woyofal lool njàngum jigéen loolu ba tey jii des na ci ay barab jàpp nañ ne njàngum jigéen amul solo bat bu siiw la bat bu ñuy faral di wax la ba am ci ñoo xam ne sax bu amagul luñ koy mën a doyee lañ ko yóbbu ci daara ja waaye su amee njariñ rek ñu génn bari na ay daara yoo xam ne yàgg nañu jàmbat ku ñuy jàngal ba am ci moom yaakaar ay waajuram yëg ni am na njariñ xëy na ci waañ wa wala ca kër ga ñu daal koy génne ci daara ji jàpp nañ njàngum jigéen amul solo te loolu it lu yàgg la lu yàgg-yàgg la loo xam ne euh, yàgg na ci àdduna defarkat yi rek ñoo ñëw jubanti ko abul ala almaari bu yàgg doon na wax naan jigéen buñ ko jàngaloon fatiha ak suuratul ixlaas mën koo jullee doy na waaye jërul na jàngal saar yu gudd yi loolu tolluwaay lawoon fa salaatul fataate bilhamdi wal ixlaasi tujuzi an yunusin wa baraa fekk daa njëkk a wax ne allimahunna alxasla wa nasja wa radna wa xallu kitaabatan wa qiraa na ngeen leen jàng daal ñu mën a ñaw mën ràbbu ràbb defar yére waaye bind jàng ak bind moom amuñ solo loolu wax yàqu la ñoo xam ne ba tey jii ay des itam dafa des ci société yi nit ñu jàpp ne jigéen ñi togg ak yàq lañ leen di doyee te xamuñ ne bu góor jagee na mel na war a mel jigéen a tax kon moo tax jàngal leen am solo moo tax Mawlana Cheikh Ahmadou Khadim ba mu ñëwee samp ay daara daa sampoon daara yoo xam ne góor ña ak jigéen ña lañ fa yóbbu mën nañoo wax ne ci suñ gox yi ñi jël gone yóbbu leen daara ñu jàng ci doon ay jigéen bokk na ci ñi ku njëkk tasaare lawal ko yaatal ko jël ay njabootam yóbbu leen daaru alimul xabiir ay góor ak jigéen ba ci sax soxna yi ne ci kër gi ñëwoon ci kër gi te seen àlluwa àggutoon ñu yóbbu leen ca daara yi ñu àggale seen àlluwa xam nañ ne soxna Fatou Tuuti Diop wooy juru Cheikh Mamadou Mortada fii ci daarul alimul xabiir fi la àggale alxuraanam ba bindi fi juróomi kaamil te booba dafa ñëw di liggéeyal si yàlla ci kër sëriñ bi kon wane na ne sëriñ bi moom xamoon na ne jigéen ñi jàngal leen am na solo am na solo ndax mooy tax liñ leen di doye ñu man ko jigéen dañoo am ay taxawaay yu rëy yu leen soxla ci société bi taxawaay yooyu buñ leen jàngalu yar leen duñ ko mën a taxawee bokk na ci taxawaay yooyu jigéen ab jaamu yàlla la jaamu yàlla la boo xam ne daa war a jaamu yàlla liy tax mën a jaamu yàlla mooy mu xam yàlla boromam suñu borom bi mu bindee jaam ñi nit la bind ne leen jaamu leen ma wa maa xalaqtul sa illaal insa illa liya'buduni góor génnu ci jigéen génnu ci léegi nag yàlla kenn du ko làmbatu yàlla kenn du ko dàkk ci am xel waaye dañ ay si ngay jaar doon ko mën a jaamoo loolu bokk na ci li tax ñu xam ne jàngal leen am na solo mooy tax ñu mën a jaamu yàlla mat lañ doon waaye guñ ci jàngalul aada ngay topp man ngay sonn ci mbir di ca góorgóorlu guddeeg bëccëg jàpp ne lu baax na fekk baaxul te yàlla moom ma ne su ko nax loo mën a def bu nuróolu jagit te jagut fa yàlla yàlla du ko bàyyi xel kon am na solo ndax mooy tax ñu mën a jàmm yàlla am na solo ndax dañ leen a indi sas leen aw sas yonent ay salaam ne jigéen raa yàlla ab sàmm la ci biir kër borom këram tey it ko laaj bu ëllëgee liñ doon sàmm kon soxla na bu duggee ci kër gi nu mu fay nekkee lu ko war ak liñ koy sàmmaloo lan la ak nan la koy sàmmee buñ ko jàngalut yëru ko day dugg ci kër gi taña ko rek mën naa doxe sagoom mën naa sonn lool te du jariñu léeg-léeg ngeen dégg koo xam ne mës ta noppalu ci këram te jariñuwul ndax xamutoo li doon def da doon doxe ak xolam te xol kese deesu ci dox bokk na ci li tax ñu jàngal leen am solo bu ñu leen jàngalee bañ xam bu ñu demee ci biir kër xam ne ay sàmm lañ responsable lañ boo lëggee dañ la laaj danañ xam la ñuy sàmm lu doon danañ ko mën a jaarale yoon danañ mën a fexe ba it boo lëggee leen yàlla doon doye ci sàmm gi mën koo sàmm euh, société bi dafa leen soxla ci yu bare bari yoo xam ne mën nañoo wax ne jigéen ñi la fa yàlla di déglu ko seen kàddu te foofa nag jigéen juñ yërut jàngaluñ la doo mën a joxe kàddu gañ lay gañ gañ soxla ci yow tey yar yar bi ñuy wax nii wàll gi ci ëpp solo jigéen la ko yàlla teg mooy xale bu door a juddu ba ba muy dëgër ci loxoy jigéen la ko yàlla teg dañuy wax sax ci li fekk xam ne bu jigéen tàggoo woon ak borom këram doom ja da koy sañ yóbbu yor ko bàyyam di ko dundal di ko faj waaye nag yor ga ak toppatoo ga ci loxo loxoy jigéen la ko yàlla dénk yaayam la koy dénk bu ko yaayam mënta yor ñu dénk ko maamam su ko maam mënta yor ñu dénk ko ay bàjjanam ay jigéen daal lañ koy dénk gépp góor guñ koy jox sax dañ cee charte nga am jigéen ju ne ci soroon joo xam mën naa yor gone gi mooy tax lislaam doon la ko jox kon moom moom la yàlla sàmmaloo ndaw ñi kuñ sàmbaloo gone nag war ngaa xam gone nuñ koy yore war ngaa xam gone ay ihtimamaatam luy tax mu jag luy tax mu dëng nga mën koo moytu luy tax mu mën a gën su màggee kon soxla nañ ñu jàngal ko yar ko ndax moom mu mën a yare ndax loolu koy doyee bi ci des it ci àdduna xam nañ ne am na taxawaay yoo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu jàngale jigéen lañ fa gën a soxla àdduna bu jagoon mel ni war a mel ku wéradi bu dee góor góor lay faj bu dee jigéen jigéen moo lay faj waaye manque li war a am ak ñàkk bàyyi xel diine tax na suñu société yi genn wet lay doxee am na ci barab yoo xam ne jigéen dong nga fay nekk ku wax buñ lay fajit boo dee góor góor jéen lay faj am ci yoo xam ne nag góor a fay nekk li jëm ci wàllu jigéen ak yi koy dal ak yi xew ci moom ak am doom yi ci aju loolu yoonu góor waru ci war nekk ay jigéen lañu waroon jàngal àdduna ba ñu xam ko jàngal leen diini ndax dëgg la faj xam-xamu adduna la waaye nag daal lam boo xam-xamu diine bare na ñoo xam niñ jànge fajum àdduna buñ ca boole woon xam-xamu diine seenu faj dana gën a gaaw gën a wér ëpp jeexit waaye da ci bari ñoo xam ne jàng nañ àdduna faj moom ci la ñam misaal bi ma joxe rek mooy xam nga yonent yàlla Muhammad alayhi salaam daa waxoon ne doom bu juddoo li gën ci liñ koy njëkk a dafal mooy nañ nodd ca nopp ba liqaam ca loolu ñu ngi koy def ñun bu ñuy tudd doom ji waaye fañ ko njëkk a santaane mooy bu doom juddoo foofa ñaare jigéen ña fay nekk di rewle gone gay di ko yor bariwu ci ñoo xam ne dañu leen bàyyi xel ci jàngal leen diine jàngal leen nu ñuy nodde ba bu doom ji rotoon ñoom ñu mën a yëkkati kalimatu tawxiid xale bi njëkk koo dégg balaa dégg yenn kan te loolu xikma bi ci borom xam yi wax ne moo tax yu day salaam digle ko xale dégg lay njëkk a ci gis ak leneen te loolu muy dégg ci ay noppam xolam da koy jam buñ ko njëkkee dégtal kalimat tawxiid am nañ yaakaar ci ne bu màggee gone guy wéetal yàlla lay doon ku jub lay doon ku baax lay doon waaye bu ñu xoolee kon tey day mel ne gone gi bis bañ koy tudd ci lañ koy door a dégtal kalimat tawxiid boobu te fekkoon jàngal nañ sage-femme yi jàngal rewlekat yi ñu xam yooyu xam seen diine bu rafet xam ñaan yi ànd nag wàllu googu nga xam ne bu fi jigéen tolloo léegi-léeg góor du fu mën a àgg ñoom ñu mën leen a jàngal ñaan ci aju bu juddoo it li lislaam santaane ñu mën koo def ci wàllu diine boobaa dana doon gone yam ci ñoom yaakaaram loolu lépp ay taxawaay la yoo xam ne jigéen buñ ko jàngalut yëru ko du ko man su boobaa nag société bi mooy ci loroo ndax ku juddu gëmul yàlla dëgërut ndax déggut kat kalima tawhid ba mu ko waree dégg yaruñ ko yarub lislaam màggewul noona société bépp ñoo ci lor ndax jeex itam du yem ci moom waaye fu mu dëkk fu ne wàll leen kon mën nañu jàpp ne jagade gi am ci xeet yi nit ñu jubade ñi yàq gu bare gi tooñ gi wax yu ñaaw yi ak jëf yu ñaaw yi yëpp bokk na ci li ko sabab ñàkk taxawu jigéen ñi ba bañ tolloo ci war a taxawu gone yi ñu taxaw leen gone yi bu door a juddu xëy na xamagu dara waaye nañ bàyyi xel ne xel mi mi ngi dox bët yaa ngi dox nopp yi dox moo tax suñu borom waxoon ne wallahu axrajakum min butuuni ummahatikum la taalamuuna shay'a waaye wa jaala lakum sama wala busaara wala afidata laalakum tashkurun bi ngeen di jub ñëw ci àdduna xamu leen tus waaye lii tax a xam nag def naa ko ci yéen ay nopp yuy gi dégg ay bët yuy gis ak xol buy jàpp xale yooyu ngeen di gis la ñuy tuuti tuuti lépp luñ dégg mbaa ñu gis ko mooy dugg seen xol kon bu ñu amee ay jigéen ay woy jur yoo xam ne jàng nañ diine xam ko xam nañuy jëflante gone gi fexe ba lu baax rekk lay dégg moom lay gis gone googu màggee bala ñu koo jàngal dara fekk na mbaax yëpp na ko ba dugg na ci biiram da yomb jàngal da yomb yar waaye boo xamee nag ay saaga ay wax yu dul yoonu ak yu sàgganu waxtu wu ne gone gi màgg ci loolu su màggee daf yaram neen ci mbedd mi wër ta bett kenn kon am na solo jàngal leen ndax mooy tax ñu mat lañ doon war naa léegi ne koo xam ne dañ fa ñëwoon di wàcce si gan far doon gan ga loolu rëy la bi ci des it yéemu ci waaye ñeneen ña doon ñëw ci kër ga ñu ci bari moo leen fa andi xam kooku xam na ne wërsëg lu baax dañ koy bokk xam na ne ngëneelu yàlla yemul fenn xam na ne kenn mënta lekk cërub moroomam ñii bañ wuti ñëpp dañoo ragal yooyu jàpp ne xëy na bu kii dikkee du mu yaatu wala li ma am loo bëgg wala dana ma xaj nangam dana ma xañ nangam maam nag moo doon dem di wuti ñuy ñëw dolli ko ci kër gi doy na ko ndam moo indi soxna jaaratullaahi ci kër gi loolu doy na ko ndam soxna jaara mi way juru Mawlana Cheikh Ahmadul Khadim bu liggéeyalutul yàlla lu dul loolu rek doy na ndam kon moom loolu nag li ko may mooy dafa juddu fu mu war a juddoo ñu yar ko jàngal ko wan ko lim doon xamal ko ne ko boo demee kër la nga fay doyee lii la mag ñëpp dañ doon wax naan ab awo mooy aw yaay la bu dikkee day aw yaay ci kër gi li yaay doon sonn ci doomam bu awo dikkee da ko war a nangu ci moom féete ko fa loolu nag kuñ jàngal yar ko moo ko man loolu mbokk yi nañ ko bàyyi xel moo tax gone yi yitteel yitteel war ñoo yitteel nii ñu def di leen jàngal alxuraanul karim bi leen yar yarub diine bu xasee jiitu ci ñoom mooy yoon wi gën a gàtt ngir soppi société yi bu buñ bëggee mu nekk société bu jag société boo xam ne mbaax a koy lal dañuy fexe ba gone yi xam yàlla seen borom xam fu ñu teg seen tànk boo lëgee buñ demee ci kër duñ fa nekk di wujje ñu nekk di wër ay maaman luñ am ci alal joxe ko ngir bëgg a xej ci kër te taxutu xej da nga ñàkk sa alal am ca merom yàlla te du tax li yàlla naroon dara soppi ko ci loolu ku ko xam da ngay góorgóorlu ne ci li nga war a nekk taxaw taxawaay yi nga war a taxaw bu ko defee lu yàlla indi nga xam loolu yàlla indi loolu nag ngir jigéen man ko dañ koy yar jàngal kon ni ñu war a jàngale góor ñi war leen yi noonu la war a jàngale jigéen yar leen Sëriñ Tuubaa yi loolu la ñu jàngal kon fii moom kenn amu fi aw lay ci sama doom jigéen la kon ko jàngale amu fi Sëriñ Tuubaa mooy sunu sëriñ mooy sunu lépp ak njabootam da leen yóbbuwoon daara ay góor ak jigéen fii fi daaru alimul xabiir ay doomam monkale nañ fi alxuraan bind fi kaamil ba tey jii ñu koy ndamoo di ko di ko tiitaroo jàng xam-xam taalif ay téere doon ay jàngalekat nga xam ne seen kër yi ay marakis takwin la woon ñooñu sëriñ bi yaroon ñëpp tey koo ci dem këram ab markas la boo xam ne dañuy jàngal jigéen ñi alxuraan jàngal leen xam-xam jàngal leen kër jàng leen nu ñu yore kër ba ku ci dem kër boo demee ràññu ko lool ci mbaax xam nooy taxawee sa njaboot xam nooy yore kër la la war lépp nga xam jàngal la muñ bi nga xam ne jigéen mënu koo ñàkk su bëggee am ndam ci ab liggéeyam kon ñooñu ñoo tax tey meññetum ñu baax ñi ñu xam ñëpp ne ci dëkk bi yor fi ay daara di jàngale di yare ràññ ko ci xam-xam di liggéey ci xam-xam seen maam yooyu nga xam ne foofu la ñu jaarale woon loolu it nañ bàyyi xel nañ njaboot gi ak sët yi bu ñu bëggee ci am am ci ñoom ndam nañ leen waajal foofu ndax àdduna ji jëm kat la joo xam ne kuñ ci jàngalul yaruñ la boo màggee doo tekki doo jariñu te doo mujj ndax yàqkat yi bari nañ te bari nañ doole am i ngànnaay am ay jumtuwaay yu dul jeex te seen yitte du dara yàq ndaw yàq nit ñi tàggali nit ñi ak seen diine boo xamut dañ la yóbbu ci foo xam ne day mel ne dañ laa fonk dañ laa naw te fekk dañ laa xeeb di la dugal ci yoo xam ne gëm loo la ne jigéen daa moo góor ñoo yem loolu koo xam ne yaa ko jur yaa ko yar yaa koy taxaw bu bu génnee àdduna yaa koy taxaw boo yemee moom danga nga jigéen ñi ñoo war a fekk ndax ñoo leen jur ñoo lu ne bu ñuy xëccoo yem ak ñoom loolu ak ginnaaw la te tubaab yi bëgg leen a nax moo tax waaye bokk na ci li koy weddi ku ci am borom kër dañ lay wax ne da ngay bàyyi saw askan jël sa santu jël askanu sa borom kër ci yi jigéen amut askan askanu borom kër la am madame nangam yi ngeen dégg yëpp du ngeen xam lu ñu doon seeni borom kër ñoo tudd noona waaye ñoom amuñu askan loolu mooy xeeb nit ak doy dal ko lislaam nag day tere loolu daa bëgg nit doon lim doon bokk fi mu bokk waaye mel ni mu war a mel di def li mu war a def loolu nag jàngale nii ak yar leen mooy tax ñu man ko kon nañ ko bàyyi xel baax a baax maa ngi jégalu di baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu الكتاب والحديث انصرفا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما ثم تولي إلى الذل فقال رب فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ok soxna Jaara baax na sadaqallahul azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا تفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءت جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا حسبك غير سبحانه فضل صدق الله العظيم لا أن يشاء إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم nuyoo bi ñu teg ko ci loxo soxna Momy Sylla di jotal nuyoo inspection de l'éducation et de la formation bu Mbacké nuyoo académie bu Diourbel ak nuyoo ministère de l'éducation nationale di feselaat mbégte ci teew ci jataay yu mel nii jataayu ar xam-xam jataayu alxuraanul karim waaye jataay bi moom li ko gën a taaral euh, mooy xam-xam la waaye cible bi ñi ñu fi fekk muy ay xale yu jigéen di ay soxna ñu nekk ci monde boo xamante ni monde bu ñu bari tiit la ci gis fu bari lu yàq di ball di dem ci njaboot gi euh, ñu fekk sëñ Mbacke Abdourahmane def ci waxtaan bu am solo ci solos yar jigéen ak jàngal ko euh, kon defe naa lii ku fi ñëw dina gën a dalal xel moo tax waxtu wi guddul bañ mën ci développer waaye dañuy ñaaxaat rekk soxna moom yi mu xam ne liggéey bii muy def liggéey kawewu ko liggéey kawewu ko ci lislaam loolu moom xamal na ko boppam waaye ci développement ak ci defar nit rek liggéey kawewu ko ndax nag fukki góor yu jàdd yu seen éducation raté moo gën benn jigéen bu éducation mu raté loolu ñëpp dëppoo nañ ci ndax genn jigéen gu éducation rate mën naa yàq àdduna moo tax defar soxna dara féetewu ko kaw ci mérite te loolu enjeu yooyu ñëpp comprendre noonu nañ ko jigéen la dem nañ ba bu ñu nee code de la famille boo demee soxna lañu fay waxtaane mu mel ni code boobu lu bari dañ koo tuxale ci alxuraanul karim boo demee saar wiñ tudde jigéen boo xoolee liy organiser famille lu ëpp ca lañ ko wax ñu ciy jànge ni kon jigéen mooy famille te famille mooy société te société bu jagul jagul àdduna du jag moo tax ñu ngi leen di ñaaxaat bu baax a baax a baax a baax système bi nag soxla lii man dama wax ni te loolu lay daanee la ndax waxtu wi guddul système éducatif sénégalais am nay jafe-jafe autorité yi bees yi ñëw am nañ ci ay mébét waaye lu wérte te wóor buñ gestu woon ñëw Tuubaa étudier yi ñu fiy développé ñu def ci ay recherche yu wér ci offre yi ñu fiy développé mën nañ cee tëgg système éducatif boo xamante ni Sénégal gépp dinañ gis seen bopp ba bu ñu fi jógee sax àdduna ni ñuy demee Singapour américains yeeg ñëpp di fa jàng ci système éducatif dinañ tuxu di ñëw Sénégal gii di fi jànge ci ci wàllu système éducatif ci fànn yépp nag loolu nag du démagogie du dara maa ngi Tuubaa di gis li fiy xew te xam naa tamit yeneen système éducatif yi def comparaison bu objective xam ni bu ñu defoon lu mel noonu euh, njariñ dina ci tukkee loo xamante ne mën naa law ci àdduna bi yëpp kon ñu ngi santaat ñëpp di nuyuwaat ñi fekk ñëpp mënuñoo lim waaye mbég nañ bég nañ lool ci jataay bi di wax ni nag ñu ngi tàllal loxo daara yëpp ci wàllu accompagnement ak lu inspection mën a def rek jëm ci daara ji wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. wazzariyati zarwa. فالهاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم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 ربنا فاصبر صبرا جميلا إن يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تهويه ومن في الأرض جميعا sadaqallahul aziim soxna moomi ne ko njabootug sëñ Modou Rokhaya gépp bég na ci moom ndax moomkat li jafe lool te mooy feesal ndabi xoli xale yi ci alxuraan ni ko lenn ci boroom xam-xam yi waxe na inna haatihi alquluub awiyatun fa ashqiluha bilquraan wala tushxiluha bi gayrihi moom soxna moomi day ku am taxawaay la ci loolu rawatina ci jamono joo xam ne al awlaad bi xaajatin ila namazij akthar minhum ila naqaat les enfants ont besoin de modèles plus de critiques xale yi fi ne ay modèles lañ gën a soxla ci di leen critiquer modèle yooyu yii nag ak exemple yooyu soxna moom yi nii di suñu jarbaat daf cee bokk moo tax sëñ Cheikh wax nañu bu ngeen demee nang na ngeen ko wax ne ko maamam sëñ Modou Rokhaya mi ngi koy ndamoo ñaari waajuram ñi ngi koy ndamoo ndax gone goo xam ne xamut lu dul taallumul quraan wa taalimuhu lil atfal dolli ca wa aqaamat xuruufahu fi tilaawa wa taxriraha fi boole koog nag di def tafahumil maani wa xifti xuduudihi wa amilat bi ma fiihi ak al amal bi ma fiihi loolu la soxna moom mi nekk fii ci këram gi ci daaru salaam loolu nag nekk loo xam ne bu say maam ak say wayjur dellu siwaatoon mën ngaa bañ a soppi ab jataay ak li ngay nekk nekk nekk ndaw ndax wax nañ ci alburhan fi ulumil quran ne assaid man sarrafa himmatahu ila al quran wa waqafa fikruhu wa asmuhu alayhi wal muwaffaq wal muwaqqaf man wafaqahu li qiraatihi wa tadabburihi ki am tawféex dëgg mooy ki yàlla tawféexal ngay jàng alxuraan te di ko jàngale weñ sa pas ak sa pastéef lépp jëme ko ci alxuraanul karim te loolu la soxna moom moomi def noonu la mel te loolu lay dundal te sëriñ Touba nag bi muy sanc dëkkam bii di Daaru Salaam la taxoon mu sanc ko bi niyatin xaalisa mooy jaamu yàlla moo taxoon mu sanc dëkk bii te jaamu yàlla nag dara jiituwu ci jàng alxuraan ak di ko jàngale kon moom ñiy dundal dëkk bi ak li ay atam di néew néew lépp kenn dàqu ko wala nga raw ko ci dundal dëkk bi te alxuraan mooy dundal daaru salaam rabbi biha min alwara maa laa yoxat yaa xayra man wa xayra man kon loolu wane ne ne alxuraan ak yar ak teg ak ak yar ak yare mooy dundal dëkk bi di di daaru salaam soxna moomi am ca taxawaay bu am rafet euh, taxawaay bu rafet kon sëriñ Seex ak njabootu sëñ Modou Rokhaya ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla dollee taxawu ci barke maamam yi ko seq ci barke sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yàlla dëgëral ko kàttanal ko dooleel ko ba li mu yéene ci lislaam ak liggéeyal ko lislaam te jubluwu ci lu dul roy ay maamam ak ay waajuram suñu borom dimbali ko ci defal ko ci tawféex yolaazimu siir yàlla na ko ko ci saaboroom defal muy soññee moom sëriñ bi ne bu sañoon day ku sëñ Modou Rokhaya njaboote ci doom ci sët ñëpp nu delluwaat rawatina nag sëti Seex Modou Rokhaya yi ñu roy ci soxna moomi mii ci yoon wii nga xam ne ci la tegu te di ci teg ak njabootam ak tuut tànk yi ñëpp maase roy ci moom te jàppale ko ci itam te jàppale ko ci te dooleel ko ko ci itam ndax soxna moomi kat ku mat a jàpp la ndax jàppale ko mooy jàppale alxuraan dooleel ko mooy dooleel lislaam waaye ku ci mënul dara it na ko ñaanal yàlla suñ borom taxawu ko ci barke Sëriñ Tuba ak barke Sëñ Gaawan ñoo ngi yemale foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه إبراهيم في ربه أن آتيه الله أن آتيه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم من المغرب فات بها من المغرب فوهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نقصها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إن إما العذاب وإما الساعة وإما الساعة فسيعلم من هو شر مكانا وأدعى جندا ويزيد الله الذين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 أعد له من العذاب مدا ونعيسه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذوهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فقير لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم kon ñoo ngi yëkkati kàddu daara ji ci turu soxna Momy Sylla mi nga xam ne mooy kilifa daara ji daara ji comme ni ngeen ko xamee muy daaray soxna maam Anta Ndiaye ni ko mbokk yi waxee léegi judd na 2019 waaye daanaka ay liggéeyam dëgg-dëgg mi ngi tàmbali ci 2020 mu doon benn daara ci daara yi nga xam ne ñi ngi bay seen laaj ci wi ci xamal doomi jullit yi ak yar leen yarub diine lii daara ji jëmmal tey nag muy xew-xew bii ñu nekk am na jublu gu tax mu def ko te moo di teral tu tànk yi nga xam ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo leen njëkk a teral ci wattu téeram bi ngir teral leen ci seen kanami kilifa teral leen ci seen kanami mbokk bañ yëg ñoom xale yi ne ngir alxuraan rekk moo tax nu yelloo lii waaye tam seen moroom yi soññ koo ci loolu ak jublu la ci amal daje bi waaye tam ku nekk ci barabit ay njaboot yu wuute nekk ci soron ci kólliteg seeni waajur ngay def ci ñoom ab liggéey dana baax léeg-léegi nga génn ci biti lenn ci ña nga séqal liggéey boobee ah ñu yëg ne te xam ne liggéey bi kat doxin waa ngi nii donte xam nañ ne yàlla moom mooy ki peeg lépp ba tey mbokk yi bokk na ci jubluwaayu daje bi lenn ci gone yi nga xam ne xëy na ñoom mokkaluñ waaye ñu ngi ci daara ji seen moroom yi mokkal soññi leen bi nga xamee ne gis nañ ñu leen teral teraanga yu yi ngir alxuraanul karim mbokk yi comme niñ ko xamee daara ñu ko séq mooy donga bi ak jàngalekat bi ak waajur yi kenn ku nekk ñoom nag su taxawee ci warteefam kon jafe-jafey daara dana gën a néew incha allah kon ñoo ngi fàj fàttali waajur yi loolu ñuy respecté liñ warloo ak daara ji muy ñëw heure ndax yow waajur wi bëgg nga sa dundub doom di ñëw heure bàyyil xel tam ne daara ji dafa jël ay jàngalekat sartante ak ñoom lamu mu sartante ak ñoom waajur yi yow soo amee sañ-sañu tardeel li nga war a joxe tam kilifa daara ji moom amul sañ-sañ ci def lu mel noonu amul sañ-sañit euh, li xale bi mënta ñàkk di tarde kon nañ dimbalante ci loolu bu baax a baax ñoo ngi fàttali mbokk yi ba tey ne bokk na ci li daara ji di ittuwoo lool ñuy ormaal wala ñuy respecté bagage yi nga xam ne moo jëm ci xale bi muy lu jëm ci li ñuy jëfandikoo seen yenn xeeti lekk yi ak lu mel ne xeeti diw yeeg yooyu waaye tam ñoo ngi leen fàttali ba tey ñuy ormaal bis yi nga xam ne ci la ñuy wisit daara ji te loolu ñu date ko ci alxames yi nga xam ne moo jiitu ci weer wi ci weer bu nekk kon ñëpp bu tënkoo ci loolu rek dana yombal liggéeyu daara ji waaye itam dana sàmm ak nosoom daara ji tam mi ngi fàttali ñëpp ci ne seen jubluwaay ci liggéey bi du quantité muy dajale fi ay dongo yu bari waaye seen jubluwaay mooy am qualité njàng mu am qualité jamono yi may waxee li fi nekk ci ay donga ñi ngi tollu ci 65 jàngalekat yi fi nekk toll ci 3 euh, loolu fi ñu toll nii boo ko séddale seen diggante ñu tolloo kenn ku ne du yor du yor lu ëpp ñaar fukki donga ak benn daara ji tam mbokk yi bàyyiwut jàngalekat yi ak donga yi rek ak li ñuy doon doon jàmbaar waaye kii di wax ak yéen mooy ñëw léeg-léeg di seet ak a natt njàngum xale yi kon soxna yi ak ci turu daara ji ñëpp ñu ngi beral ak cant sëñ daara yi wala soxna daara yi ci liggéey bu sell bi ñuy def te xale yi doon ko gaaral nii ndax kat soxna yi xëy na daana ci bopp bi jiite waaye nag dëgg-dëgg liggéey bi mooy ñi nga xam ne ñooy jonjook dongo yi ba def ci ñoom liñ def ci ñoom soxna si tam mi ngi beral ak cant cant gu rëy ci kilifa ak dëkk bi te sunu nuyoo war na tàmbali ci moom muy sëriñ Abo Mbacke yàlla na yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko soxna si mi ngi koy beral ak cant di beral ak cant sëriñ euh, Seex Anta naka noonu sëñ Maam Mor Tuubaatul soxna ma Anta Mbacke waaye tam mi ngi beral ak cant soxna Ndey Xadi ak mbooleem ñim àndal seen taxawaay rafet na lool seen taxawaay ràññeeku na lool ci bis bi fàttewut tam sant soxna maam Anta Mbacke Sohaybu waaye itam mi ngi sant kilifa waajuru donga yi maanaam ki jiite waajuru donga yi muy sëñ Mourtala Mbacke ak soxna Mati Sall seen taxawaay rafet na lool waaye itam di sant mbokki dëkkandoo yi di sant tam surtout ñi nga xam ne ñoo nekkan ci kaw muy sëriñ xaadim fan yii yëpp wax dëgg yàlla ak waajtaay wi liggéey na ci xale yi liggéey bu rëy rëy liggéey bu mucc ayib daana baagante ci daara ji lu bare bare ngir lii ñu wan na ci daara ji tey mën a nekk di sant sëriñ Mourtala Sylla ci sëñ Balla Gueye moom it taxawaayam ku lool naka noonu sëñ Seex Jiili mi kenn amul seen fay yàlla rek mu am seen fay yàlla na yàlla fay leen may di sant tam sëñ Fallou Fall bu baax a baax moom it ci njàngam mu neex mi kaar macha allah waayam bu rafet waaye tam foofu rek lañuy ñuy jeexale di yëgle ne kon daara ji jël na bër tey bala kaat incha allahu taala muy bis bi nga xam ne ci la xale yi war a delsi waaye tam soxna si mi ngi fàttali nañ respecté waxtu woowu nga xam ne moom lañ leen wax ñu war a dellusiwaat ngir tàmbali njàng mi kon noo ngi wàccee suñu kàddu foofu di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu fekkewaat ko at yu bare bare di ñaan tam tànki dem yi wala tànki dikk yi ak tànki dellu yi lépp suñ borom bind ko ci seen téere yiw ñoo ngi jégalu Leo